dañuy organiser ben événement bo xamanteni ni lepp mi ngi tënku ci karaté ak euh, développement ak karaté ak éducation non lañ ko tuddee bon muy ben open international bu ñuy def fi au niveau du ñaari tali bu ko défé ñu nekk ci di di ci yëngu bobu légui fas yéene ko def le 7 ak le 8 euh compétition bi tënku ci 24 euh, catégories yo xamanteni dañu wara war ñëw def ci jonganté ñu woo ci ñëpp nga xamante ni Sénégal ak euh, ñu bitim réew ak biir réew mi yëpp ñu ngi koy waaj pour ñëw. partenaires yu ñu jàppale euh, bareegul mais ñi ngi yaakaar ñi ngi xalaat ñu bëri dinañu ñëw parce que def nañu lancé nañu appel surtout commune de Biscuiterie yi ñi nga xamante ni ñi fi nekk ñi ngi ñu ñi ngi yaakaar ñu jàppale ñu am na ku ñu promesse comme Arona Coumba Ndoffène nee na dinañu jàppale. ñi ngi xaar daal vraiment ay ay ay ñu ñu jàppale ndax compétition bi tollu na fo xamanteni ni dimension bi vraiment euh, kenn mënu la wax tant ñewulo ci bis bi. Ah, programme bi ni muy tëddee euh, samedi euh, manam arrivée délégation yi vendredi lay doon ndax délégation yi ñi joggé Kaolack ñi joggé jóge Ziguinchor ñi jóge Kolda ñi joggé Tamba ñom ñëpp def nañu mobilisation ni danañ ñew wa Dakar ñëpp danañ ñew wa Thiès wa Kaolack ñëpp dañuy ñew bon arrivée délégation bi vendredi les donne. samedi matin mooy nekk vérification des poids Madame maanaam pesé waat nit ñi seen catégorie est-ce que normal ou normal normalul ak briefing des arbitres ak coach bu ko defee bu ñu à 8 h à 9 h et demi 10 h la compétition bi di démarrer moi éliminatoire yi su nous éliminatoire yi ba qualifié ñi qualifié final ñooñu dañuy xaar final dimanche nous ñi dem tëdd noppalu dimanche à 15 h nous ñuy def cérémonie officielle bi parrain bi ñëw ak ñi nga xamee invité ñu mën a commencé final yi def final yi ba ngoon jot ñu def remis de diplôme yi ak remis de trophée yi ak euh, li nga xam ne la médaille yi li mu war puisque événement bi li ko tax a jóg mooy nit ñi comprendre lan mooy arts martiaux xam naa comprendre nañ ko mais bu ñu ñëwee ñaari tali li tax ñu opté pour def ko esplanade bi dañu bëgg mu nekk gratuite ñëpp ñëw mu nekk loo xamante ni ku fa ñëw di nga xam lan mooy arts di nga xam lan moy karaté lan moy karaté compétition tax karaté mi ngi mi ngi nek karaté olympique nit ñi war nañu comprendre lan moy karaté message bi may lancer moy wa Biscuiterie wa ñaari tali ñëpp nañu mobiliser wu ñew parce que am nañu gan ñu bëree bëri yu ñew te bëgg nañu bu ñu ñëwee ñu fekk leen ci teraanga jo xamanteni ni wax deug yalla dinañ xam Biscuiterie Ben quartier la ci biir Dakar mais quartier la ci biir quartier yi comme ni ñaari tali karaté club mer ci biir karatékaay parce que ñaari tali karaté club nekk na club bo xamanteni chaque compétition muy national di international fuñu dem dinañu dinañu woné xarañté go xamanteni dinañ ah ñi dal vraiment euh, jambar lañu par rapport ak moyens yi ñu am bariwul gis ngeen fi ngeen ñu fekk ñuy entraîner ben centre la euh, ñaari tali amul club bopam lolu dama koy wax pour képp ku ko dégg xamni war nañu pour jàppale ñu message bobu lay jallalé